Ne, ne prenez pas d'abord. ak Mbaye Sall. waaw waaye je toujours continué man ma combat parce que je toujours combat bi doon nekk tànk. non non non. S'il vous plaît, restez. S'il vous plaît, restez. Allez, Restez là où vous êtes. Restez, restez. Restez là-bas. Ani daam mu ngi fële. L'autre là, ani daam. Daam mu ngi ci oto ba montage mais en direct la mais en direct la waaw waaw foofu réseau bi doxul. waaw non je me rappelle je suis un peu pris là.

ñoo moom tey max bi ak oto bi. moto bi ak ak ak oto bi. waaw. waaw. waaw ñoo ko. exemple moto Ça, c'est leur moto. C'est un t cette voiture Ford. ñoom ñoom moom Ford bi tamit quoi. oui. ñoom ñoom Ford bi oto bii ni ñoom ñoo ko Ford bii nii bu weex tàkk bi. moto bi tamit ñoom ñoo ko moom mooy T-Max nii ñoom ñoo ko moom അങ്ങനെ suñ gënee kii mu ko wàcc loolu suuf kon bu coow bu wàccee moom may gënal naa su fekkee rek nañ ko wàcc

voilà comme vous le comme ni ngeen ko xamee ñu ngi fii nii ci gendarmerie nas kii gendarmerie bu Tambacounda donc euh, brigade de recherche bu Tambacounda donc euh, ñoo ngi nii booy Djiné ñu ngi koy arrêté fii nii ci Tambacounda ci ville bu ñuy naan Missira donc euh, moom ak ay complice am la ñu donc indi nañ leen fii. ci brigade bu Tambacounda donc ñu ngi nii foofu on est en direct fii lay xewee ci Tamba TV duñ leen duñ leen nëbb dara lépp lañ leen di woon incha allah donc euh, pour wax leen ni rek buñ leen arrêté dañ leen indi fii direct donc éléments yi dugal nañ leen ci biir après dinañ leen génnee donc waala euh, ñu wax ak nit ñi donc euh, comme ni ngeen ko gisee Tmax bi ñoom ñoo ko moom donc ñoom ñoo moom Tmax bii nii donc Tmax bu baax ak benn Ford bu weex donc xaaral ma leen après ma dem woon leen Ford bi donc euh, Ford baa ngi nii ñoom ñoo moom Ford bii nii tamit waaw ñoom bii nii ñoom ñoo moom oto Ford bii nii donc euh, moom ak quatre euh, complices lañu jàpp donc gars yi dugal nañ leen sànq sànq sànq gis ngeen ko donc euh, sur Tamba TV la donc euh, fii lay xewee donc mi ngi noonu donc euh, ñu ngi fii nii comme ni ñu koy waxee rek ñu ngi fii nii ci brigade bu Tambacounda donc brigade gendarmerie bu Tambacounda donc fii lañ leen fii lañ dencee boo Djiné pour l'instant mi ngi fii nii pour l'instant mi ngi fii nii d'abord dañuy xaar léegi après gars yi génn wax ak ñun donc ne quittez pas restez toujours en ligne donc léegi léegi gars yi génn si biir wax ak nit ñi donc euh, def déclaration wax ñu affaire bi nu mu demee incha allah restez connectés restez connectés ne quittez pas dans un instant gars yi génn léegi léegi léegi léegi ñu génn donc maa ngi seen journaliste yi ñu ngi teg seeni caméra pour xaar euh, colonel bi génn donc colonel bu génnee léegi léegi ñu def euh, point de presse wax ñu déclaration wax ñu affaire bi nu mu demee donc pour xaar daal mi ngi nii fordu baa ngi nii ñoom ñoo ko yoroon ñoom ñoo ko yoroon Ford la donc euh, ak T-Max bii nii donc euh, donc mi ngi noonu Ford bii ak T-Max bii nii donc euh, restez connectés restez à l'écoute ñu ngi nii di xaar ñu ngi xaar ba tey donc euh, bu ñu peree rek incha allah gars bu ñu génnee rek incha allah di ngeen gis déclaration bi. ok dañuy coupé direct bi le temps que gars yi génn le temps que gars yi génn quoi donc euh, restez toujours à l'écoute bu ñu génnee rek après dinañ recevoir direct bi comme ça ngeen mun koo seetaan incha allah ok restez à l'écoute